di nuyu mbokk yi àdduna di nuyu mbokk yi Sénégal di nuyu mbokk Kaolack gépp euh, di leen sant baax ci taxawaay bi li nga xam ne moo indi woon rek mooy euh, mbas la ci biiru mbas. na dem mbas la moo xamante ni juróom juróom benn weer yëpp yàlla indi fi jàngoro joo xamante ni lëmbee na àdduna rawatina senegal rawatina Kaolack gi ci bokk nekk. Euh, ci biir loolu nag barki démb yàlla defaat fi natt boo xam ne dara na ci suñuy mbokk suñuy mbokk dëkkandoo. suñuy mbokki dere suñu mbokki julit eh, muy lakk yi nga xam ne amaan na ci biir marché central bu Kaolack eh, ci biir lool nag eh, ku am yërëm ku am yërmande di jël ndimbalam ak wërsëgam di ko dimbalante ak mbokki dëkkandoom yi yi nga xam dañoo nekk fii ci Kaolack ci saa yu ñu xewlee su dee aw tiis la su dee bànneex la tiis bi nga xamante ne ci kaw nag mbokki marché central bu Kaolack bi bi loolu amee mu yabaloon ñun euh, maag sëñ Aliou Cissé Niass ñëw teewal fi kilifa dina yi ànd ak moom yëpp ak euh, coordonnatrice am dégg nga ak euh, ki topp ci coordonnateur am dégg nga ci mouvement Rahma ak mbooleem mi nga xamante ni mbooloo mi nga xamante ànd nañoo ak ñoom ñëw fii ngir présenter ndimbalam ci wërsëgu boppam lu toll ci cinq millions juróomi millions indi ko teg ci loxo seigne Fallou Diakhaté mi nga xamanteni ni euh président ñi lakkale mu teg ci loxol trésorier bi ngi dimbalante ko ak ñom euh lool moy li nga xamanteni yabalon nañu fi la ci dess nak incha allahu rabi muy luñu wara wax dégg lool mom dañu nako ba ci loxo seigne Aliou Niass dana ko wax. nous sommes venus ici représenter monsieur l'ambassadeur itinérant l'infatigable Modou ndjay Rahma. euh avec une forte délégation. On peut citer Serigne Babakar Mbake Moukaboro, on peut citer la représentative euh, des femmes, on peut citer Madame Khadijob et tant d'autres. représentés euh, représenter Ndiaye Rahma au niveau du marché central de Kaulak euh, pour au niveau du marché central de Kaulak pour, lui, pour, pour leur témoigner notre gratitude pour euh, partager la douleur qui pour partager la douleur euh, du, ravage de feu qui s'est produit ici au niveau du marché central. Comme vous le savez, Modou Rahman, c'est le politicien le plus proche de ces populations. À chaque fois, des situations se présentent comme si on, on note son présence. Et c'est pourquoi il nous a donné une enveloppe de 5 millions pour qu'on lui donne le représentant des commerçants ici mais néanmoins, Inch'Allah, il va parler avec, avec les autorités pour la reconstruction du marché et pour euh, à chaque fois amener ce qu'on doit amener ici euh, au niveau du marché central de Kaolack. Nous ngi sant bu baax baax di leen nuyu di délégation de ma Nous xam nañ ni yëg nañu ndax lii ko yëg ku nous rek ndax démb la fi yobal benn délégation bu nga xam ne nii bu ci yemoon doyoon nañu tey mu yëkkatiwaat kilifa yii di sëriñ Aline Cissé Niass ak sëriñ mu Babacar Mbacke mu Kabaro ak ñu toll ci dëkk bi ak liñ ñu représenté ci dëkk bi ñu ñëw ci marché bi ci lakk gi pour mu ànd ak ñun ci métit bi mun Ndiaye ma de wàccoon na ak ñun wane na de lii moom nitu marché la avant dara moom nitu marché la woon bu marché lakkalee mu ñëw. kon moo ñëwaat na fa mu bokk kon ñi ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ñun wàccoon ak ñun ndax am na délégation yu fi ñëw yu bari waaye kenn koo xam ne yëkkati na cent franc jox ñu amugu ci moom moo njëkk a ñëw yëkkati juróomi million jox ñu ko te du ñun rek la ko defal dëkk bi da koy def ci département bi da koy def ci commune bi da koy def fu ne ci Sénégal kon nag lu ñu koy def mooy di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal ñun waa marché de amuñu fayam